waxtu bi wax ak yéen instant bi nii madame Faye mu ngi seetaan télé bi ah. Ah. mook boroom këram ña ca ña ca ña nga ña bàyyi na këram ak waa fédération fondation bi est-ce que ba mu bàyyee këram lam fa bàyyi ak directive yi danañ ko def am ñu dem seeti ko torop kan toog lii ah, ko bi laay wéetal na kër gi nag ko dëgg neex yàlla man ko wéetal nañu lool. ma dem fay kay. maaleykum salaam aca ñu leen toog. kër gi de moom. wallaay. <laughs> <laughs> première dame kay mënut a ñàkk fii moom fondation bi moom wax dëgg neex yàlla moom. sama turandoo lay wér. mooy suñu wéetal. <laughs> waaw comme mënut a ñàkk na ngeen def chéri ça si jàmm. gis nga première dame ni mu ñu wéetalee de. ah waaye léegi mu ñëw rek. waaw mhm. dëgg la. wallaay wallaay ma dem ma naaw. wi entré. entre ah maaleykum salaam. mais bàyyi jox ma ci dëkk ah. na ngeen def fi tata sama chauffeur bi mooy gars yéen a ah, ngi ci jàmm bu baax waaw ñu ci jàmm bu baax ñu ci jàmm bu baax yéen a ngi ci jàmm ñu ci jàmm mënoo def nag alhamdulilah ça va sant yàlla bu wér jàmm rek allo ñu ibbi nañu <laughs> may le ah oui mhm, mhm. ah kuy woote mare ah mooy woote allo na nga def maa ngi fii ci xale yi ah, sama kii baa ngi nii way na nga def ça va bien ak Awa ah, waaw nee nañ ko Awa ak Rama Rama wa Amina ak Khadija <laughs> wa madame Mbengue <laughs> ñoom ñoom ñëpp ñu nii toog maa ngi ànd sama géwél bi mm-hmm. waaw mu ne ngeen toppatoo ma kon ni ngi toppatoo bu lu ma neex ma def mm-hmm. merci ah. Karim woote na démbe mm-hmm. voilà nee na nee na mm-hmm. ngeen toppatoo ma kon ni ngeen di toppatoo waaw ba nga kontaan ma paas ah nee na jëru ko ma paas leen ko. Ah, ah, jëru ko toogal. madame merci jërëjëf maa ngi ci kër gi. toogal toogal maa ngi ci kër gi. <laughs> Mhm. na ngeen def. madame ma doon nii sax. ah waaw première dame na ngeen def nag. xam nga moom dama ko waxoon ne ko. Mhm. mu dem moom kese. Mhm. parce que yéen ñëpp boo leen àndee bu mbaay bi du baax. dëgg la dëgg la bu mbaay bi du baax. yow Karim woo na la démb. nee na nga préparé sa bagage. <laughs> na def. sa tiisi bi foo ko jëndee. peese la. ay waay d'accord maître dafa bëri ci dëkk bi rek. na ngeen def léegi. Ah, ah. ma moo wax man waxuma. waaw ma ne nga ibbil ko chambre à coucher sama chambre à ah. coucher. nga ibbi ko sama géwél bi dem foofu. waaw dafa am lu ko fay defal. ah waaw waxoon na fii de mooy bureau bi. waaw fii mooy salle d'attente bi waaw sëf ko fii ma rek waaw dañ koy sëf ah. waaw dafa am na ma ko hôtel pour ñu sëf ko ah. waaw pour ah. seytaane ak la mi ni mhm. <laughs> yëkkati baax daa bëgg Marème daa bëgg ma mhm. jox kii pour ma ñëw fii na ngeen def nag yéen a ngi fii mbaa nekku leen di jëw rek jëw baaxul de ah, ñun duñu jëw moom ñooy jigéen fondation wax dëgg neex yàlla servir le Sénégal xam nga Marème dafa baax nekk ci ginnaaw Marème rek moo tax it ku ku ku ku tukki ñu rees sa ginnaaw waaw dëgg la waaw lii yëpp pour ah. cat la waaw wallaay wallaay de dalay taaj benn place loolu de la wax ah léegi waaw léegi Marème yëg na ko Marème yëg na eh, eh, su ko waxul woon ah. duñ ko def. waaw Marème moo woote. waxu olof de la wax. wax naa moom ba pare. wax naa première dame woote na ba pare waa moom moo ko léegi baal na nee na tukki ñu wees a ginnaaw loolu de la wax. kay ma wax la. Ah. waxal demal nga gis ma dem mbeng. Mhm. ma ne ko ñii nañu génn ñoom ñëpp dama la soxla yow rek. Marème Mbengue. oui. madame madame nee na. Mhm. ñii ñëpp nañu génn daf maa soxla. ah la soxla. ah ok euh, s'il dafa dafa dafa dafa dafa daf ko soxla nañ leen dem ñu ngeen génn. daf maa soxla nee ngeen génn daf maa yoon baa ngi nii nii ngeen di jaar nga mel ne njulli nii ay ca dem leen sa jëkkër eh, sa jëkkër mécanicien la. ngay nuroog bopp tu tulliyee léegi léegi géwal kay yow ma dem ngi ci nga bokk may ñu defal nank rek may ñu may ñu kenn par kenn nga woo seen tur dañ leen soxla kenn par kenn koo woo nga génn yow may woolee nga ñëw dégg nga kenn par kenn wool par kenn ñu dugg dafa am boo leen wooye rek yow taxawal foofu maa koy réglé. ko fi <laughs> noppi. Rama. kaay wuyu kaay wuyu sama goro bi sama ah yow si fii ngay liggéey fondation bi. kaay nii. de joxal kii sa saak ah. taxawal nii. xam nga yéen da ngeen yebaate. xam nga yebaate. moom ngeen def. tey maa fi nekk ak yow kenn par kenn laay réglé seen problème. nga may xujju nii di nuroo kanaare amul defuma la dara sauf sama yaram mooy xasan dama bëgg nga okk ko wala ma okkale ko ba nga bëgg a dee di nga defati génnal génnal ci biti di nga bàyyi ci biti di nga ko def kay jaar nii fii ca wool keneen nañu gaaw Adiza wuyu sama belle-mère bi. moo la soxla gaawal dalaa soxla. buñ leen woowee doo leen gaaw. yàgg nga fi fondation bi nga nekk. yàgg yàgg nga ak Marème léegi sëggal ma wax la sëggal ñu ko def jaara jógal jógal jógal jógal jógal di nga fi liggéey te bàyyi ne génn nii kene awa Kara gaaw leen gaaw awa gaawal gaaw wuyu sër bi waa kay yow la maa ngi sama yaram bi mooy xase. ndox mi siti bi la dafa bëri. sëggee. <laughs> reemel meleen na xar génn ci biti. ah loolu de moom. taw ga jeewal nit nekkal xar. mbee. mbee. way. way daw. acca. si. au suivant. Aminta wuyul ba sama belle sœur bi sama belle mère. ça va. ça va. ça va bien. Mm. Mm-hmm. looy liggéey fii. man kii fondation bi laa bokk. ah foog bokk. Ah, waaw jàppale ma rek. Mm. mu jàppale borom këram. yow nga nekk xaritam baax ah. <laughs> bi mooy xasan. Ah, ay waay <laughs> ah lii lan la yow tamit xaaral. wuy ma kaamis eh, dama lay wax. <laughs> <laughs> sa doom bi eh, vent. kaay wuy sama goro bi da leen a soxla. madame Mbengue. Mbengue Mbow. xale yaa ngi jaax ni di jël seen ah, kii. ah la woote waat sax waaw. madame Mbengue. Uh-huh. yow yaay jël appel yi. waaw may jël appel yi may secrétaire am. sa karaw la. <laughs> xanaa dañ la marié nga sol rose ni mel ne ku dem lune de miel <laughs> eh côté ah? côté yoli yoli nga génn defal côté côté yoli yoli nga génn eh côté ah. côté yoli yoli ko ba ci suuf côté ah. ko sumi dal yi nga mel ne càkkaaba gaawal way gaawal ni ngay def nekk ci bureau marem bi di ko gaawal madame Mbengue ay eh, ci biti madame Mbengue ci biti. waaw. waj wuy waj ci biti. man de xel. yow kay toj nga fi naa fi.

waaw moo tax ma bëgg la teg fii léegi ñoom ñëpp dàq naa leen ah, man maay aak ci kër gi waaye man li ma naqari <laughs> mooy de ma xeexul sama yaram bi mooy xaseen <laughs> maa la indi di la yóbbu nu nuy xeexee bàyyi ëpp bi dafay day def retour ci sama wax kay bi euh. ma ne ma ne bi yëpp jeexee wax dëgg yàlla sama yaram bi day xaseen ma bëggoon nekk ñu autre solution gis nga Karim barki bi mënoon woon na ma nee na. ku la tegal. yow nag yaa ngi bëgg ëppal nag man du ma ragal de du ma géwal bu ragal yaa ngi bëgg ëppal nag Viviane loo ci bañ a bañ ma ko si maa ngi yow fi des man si dem. benn. man Albourey sama maam. buur ma Jolo fay sama maam. man maa bu maam Samba Linguère la. sama yaram muy xase.